ginnaaw ba ñu dundee njeexitalu journée bu metti lool démb si àjjuma ji fële ca Pikine Rue 10 Fatou Kiné mi nga xamante ne dañ koo faat si anam bu ñaaw police ma ngay woyal enquête am ba jamono ji des nañoo mën a wax ni police am na benn suspect mu nekk koo xamante ni da doon liggéey ak Fatou Kiné Gaye bu weekend jotee moom mooy ñëw jël si xaalis bi si liñ mën a jàpp ni policiers yi enquête yi ñuy def mooy ba ñu xoolee dernier appelu faatu Fatou na Gueye danoo gis numéro waajoojee daal di figurer ci téléphone Fatou Kiné Gueye ba nu ko téewee daal di koy enquete waa ji nee na ci journée ba ñëw na foofu nga xamante ne moom la Fatou Kiné Gueye ne ginnaaw ba police scientifique daal di defee ay investigation ci li mën a sukkandeku jamono ji mooy jëf ju ñaaw ji du agression waaye nag takk der yi dañoo def ndànk ci jooju nga xamante ne moom lañ suspecté ndaxte yére ba mu soloon ba mu fay ñëw ci ngoon gi da ko changé ginnaaw ba ñu xoolee téléphone ndaw sile ba gis ci dernier appel yi ban ko woowee moom suspect bi enquêteurs yi gis nañ ci moom comportement bu doy waar ba tax na sax police scientifique daal di def ay investigation ci yaramam ba gis ci ay takk-takk deret waa Pikine Info TV doxantu woon nañ fi nga xamante ne moom la jëf ju ñaaw ji amee ba sax ñu jot see am ay kàddu yi nga xamante ne moom la témoin yi yëkkati ñu bàyyi leen ngeen seetaan ko yéen mbokk internetu Pikine Info TV. Info TV ak Dakar ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax a baax ku ne xam na ni nag euh, jamono ji ñu toll waa Sénégal njaay ku nekk mi ngi dund naqar waaye tamit ku nekk mi ngi dund tiis ñu ngi fii nii nga xamante nii moom la xew bi fee. Euh, moom la fee euh, bi boo xamante ne nga yi ñu ngi nuyu ñépp di ziar ñëpp euh, di rafetlu bu baax euh, seen teewaay ndax am na solo ko man nag maa ngi dëkk fii ci kër gi tudd Fala Badiane waaw femme bi fi nekkoon ñu ñoo ko luye woon voilà. ngeen luye woon ko nga daal xëy.

waaw ah, di indiwaat ay ay kii parce que dañoo bëgg état bi aussi mu jël ci mu jël ci ay ay ay ay dispositions waaw ah, parce que instant bi quoi qu'on puisse dire mën na wax ni l'heure est grave waaw ah, l'heure est grave fi toll nii état bi war na jël ay dispositions ci rey nit ñi dafa bari doo toog ñaari fan te déggoo ñu ne rey nañ nit waaw ci ay ci ay ci ay yëfumaa tey waaw kon nañu nañu nañu état bi dimbali ànd ak population bi ñu jëlee fi di. man loolu lañ laa gis comme solution amul leneen waaw ànd ak état bi ak population bi ñu booloo euh, ñu jëlee fi lii parce que dafa jot parce que nit ñi sonn nañ da ngay da ngay liggéey bi wàcc sax doo doo ñemee am doo amee doo am fi du génn sa kër kon affaire bi tamit métti na métti na waaw te bu ñu sañoon nag kenn ku nekk da ngay dund librement doo am benn problème doo am benn stress mais il suffit nga xëy génn sa kër doo xam ci loolu ne ba kaw ngay dugaat sa kër loolu tamit métti na métti na trop. voilà. ñu bëggoon man dama demoon xadaratul juma. Hmm. bi ma génnee de bi ma rombee ah, femme bi sax dèjà nee naa femme bi tey guddee naa wàcc. parce que moom en général 18 heures wàcc. ma wax loolu sama xel romb dugg ci benn gàlle suñu dëkkandoo bi fii ma toog foofu ba ay 21 heures 22 heures moins dañ ma woo ne ma am na lu xew seen kër ma génnaat ñëw dégg ñu naan deena deena ma daw yëndu. bi ma yëndoo ma gis femme bi tëdd ma dem bay tëb pour wiiru ci ginnaaw euh, grand bi ne ma non bul laal ma ne ko non est-ce bi mu dee yàgg na après man si laa reculé nag man loolu laa ci am. est-ce que miinante woon nga am. non man miinante wu ma ak moom waaw mënu ma man miinante wu. aussi mosoo mosul problème ak. non non que man bon ci kër gi laa dëkk mais mën naa wax ni man bon li mu fiy ñëw sax bariwul mm. waaw. ñu rey ko anam boo xamante ne. ñii nee nañ dañ koo rendi ñii nee nañ dañ koo jam si li nga jot a gis. noo rendi wuñ ko. ñun mm-hmm. gars yi rendi wuñ ko ko mm-hmm. waaw ñun gars yi nag moom. Mm-hmm. Sénégal moom fee bu amee kenn ku nekk ngay dégg muy wax. kenn ku ne dangay dégg ku ne ak fi muy jaar quoi. mais ren rendi wuñ ko quoi. ñu gis ni depuis démb ba tey ba fee bi amee gis nañ police scientifique daal di ñëw waaye tamit gis nañ population Pikine ni leen taxawoo. ñu bëggoon xam jamono jii nii cas bi lan lañ si mënta mën na jàppagum si enquête police. waaw non loolu nag mënuñu cee wax quoi ndax police moom yaakaar naa ñi ngi def seen liggéey quoi mais am na loo xam ne mënuñu ci wax ñu euh, bàyyi xanaa ñu bàyyi leen rek ba keroog ñoom ñuy génne li nga xamante ni mooy résultat yi nga xamante ni loolu lañ jàpp ni moom mooy dëgg te ñu ci def la tout ba jéem a jàpp sa waay quoi euh, assassin bi quoi mais est-ce que ni tamit ñi nga xamante ne yor multi service hmm. jotul ñu daal ay visite parce que boo yoree multi service di jokkalante lu ma euh, lu dem si wàllum xaalis dafay laaj nga am sécurité est-ce que jàppoo ne loolu tamit euh, dafa jot ñi nga xamante ne yor nañ multi service ñu daal di koy wut. man moom sànq démb wax naa ko ci benn interview bi ma waxoon euh, koo xamante ni yaa ngi liggéey ci xaalis nga yor place war ngaa war noo mën a noo mën a yokkee sa sécurité rek def ko parce que on sait jamais Sénégal lañ nekk te dëkk bi dafa doy waaw. képp koo xamante ni yaa ngi liggéey si xaalis yor place même boo yorul place sax boo mënee dem uti sa fetal ut sa porte d'arme bu bu légal nga yor ko parce que dëkk bi moo toll foofu te dafa laaj loolu fi mu toll nii waaw dan lay rey say mbokk ñooy perte waaw dafa te affaire bi nag métti na trop trop quoi qu'on puisse nag waaw lépp lu fi waaye wax te waxu la na rek bon mooy loolu voilà. Mhm. waaw lu ñun moom ñun moom dinañ ci xalaat quoi parce que lii ñi ngi salteel deru Pikine tey fi ñu toll nii pikin ay noble ñoo fi dëkk ay xale yu gëm seen bopp bëgg diine ñoo fi ne waaw te lii day salteel deru Pikine amaana sax ki ko def dëkkul Pikine on sait jamais waaw mais quant à euh,

lepp ñoom ñoo ko war a def am na loo xamante ni ñun population bi aussi ñoo ko war a def voilà am na loo xam ne ñun population bi ñoo ko war a def waaw am na am na loo yu mel noo xam ne doon ne damay xaar état damay xaar état damay xaar état waaw am na loo xamante ni boo jugee ba entamé yenn service yi bon état bi dina la fekk si bu la fekk sul aussi nga dem ak say propre moyen man noonu laa ko gisee ah oui non, euh, euh, la ko affaire comme tous les sénégalais di ñaan état aussi interpeller ci affaire yu mel nañ population insécurité totale. quoi qu'on puisse dire moo nekk au niveau di Sénégal kon na état bi dimbali ay ay ay ay doomu dëkkam man man daal man appel boobu laay lancé état bi di naqaroo nag li fi xew trop trop waaw bu ma sañoon du demee nii voilà. ñu ngi leen jaajëf ok jaajëf. Pikine Info TV ak Feeling Dakar ba tey ñu ngi fii nii nga xamante ne moom la meurtre bi xewee muy Pikine Réduce ñu fi toogal nag sunu benn maam bu tudd Algora Sène maam ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet di lay seetaan asalaamaaleykum euh, mbokku info TV ak Feeling Dakar donc euh, ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp incha allah di leen ziar. maam ñu leen di masawu si naqar bi nga xamante ne ni moom moo dal seen kaw nekki démb si guddi yaakaar naa ne Sénégal tey bu ñu xëyee écran bu ñu jàpp wala télé bu ñu jàpp fee bi lañ siy gis ñu bëggoon xam nan ngeen dundee fee bi démb. waaw euh, dundin bu méttee métti jusqu'à présent nag dundin bu méttee métti mhm. démb nelawuñu tey. yenduwuñu ci ci ci ci dal donc suba aussi xamna né ce sera la même chose parce que yalla dogal na tay inshallah wona woo famille bi tay lañuy denc xalé bi à Tivaouane donc suba aussi dañu fassiyene def une délégation pour dem ci ñaan gi qui doit se tenir au des euh, Assainies unité 1 donc euh, mbir mi moom ni mu ni mu ni mu demee ak liñ ci liñ ci mëna a wax mom moy yalla dafa dogal démb vers 21h51 pile euh, dafa am suma benn xarit bu ma woo donc euh, ne ma dama la soxla woon maa ngi sa buntu kër toog après sama étonné sax quoi ma génn ñu fekk mu toog ci buntu kër gi ma toog ak moom dans un premier temps man dama yaakaaroon ne euh, wàllu xale yi élèves yi la may doy parce que je suis président d'APE souvent parents yi dañuy ñëw di expliquer seen doom yi pour des interventions loolu laa yaakaaroon dans un premier temps après mu toog ma ne ko bisimilah. mu ne ma sama doom dama ko yónni woon ci multi service bi waaye daal li mu gis doy na waar ma ne ko lan la mu ne ma bi mu demee daf fa fekkul kenn mu nuyoo kenn wuyu ko mais bi muy xoolee ci gise bi dafa gis deret te ndaw saa ngi tëdd ci deret ji. ma ne ko ah bon mu ne ma woy ma ne ko nañu dem donc man ma jiitu ko nag maa ko jiitu moom mi ngi nekk sama ginnaaw donc bi ma ñëwee man aussi ma taxaw bi ma ñëwee j'ai trouvé.

il n'y avait pas de réaction am ci laa avancé parce que guichet bi c'est tout droit boo duggee ci laa door a avancé ñëw taxaw yërndu rek j'ai vu du sang après aussitôt après man me répliquer quoi su ma wax xarit boobu de plus loin ne oh rey nañu ko ma mon ko ah mun na woy ko oh, c'est malheureux après premier réflexe man c'était d'appeler la police c'est tenante foofu laa taxaw man ak moom rek ñoo fa taxawoon moment boobu nag ak doomam bi doomam bi moom mi taxaw à côté di lox quoi vraiment xale dafa affecté won bon attends j'ai appelé la police après j'ai insisté au niveau de la police pour expliquer réellement ce qui s'est passé ñom ah oui ils ñëw tout de suite après la police j'ai dit mais il faut appeler aussi euh, qui les sapeurs pompiers j'ai appelé les sapeurs pompiers ils m'ont dit est-ce que la police est là présente mané non pas encore ñëna ma ñu aussi donc fofu la taxaw commencé à jaxlé bi may baganté la ma sama dëkkandoo yi gis ak ni may agité woo noonu ñu ne ma lan la may leen euh, xale bi dañ ko rey ko après nag ci la nit ñi commencé nag euh, di di di di amatewu di ñëw donc euh, falaa taxaw man quand même ma garder suma sang-froid parce que bëgguma woon nit ñi accéder ci biir parce que nit ñi dañu sob quoi falaa taxaw ku bëgg ñëw ma ne la non doo dugg donc ba police ñëw après voilà biñ ñëwee aussi mu m'ont ma wax leen exactement lima ma wax ni lima lima lima li ma li ma quoi li ma man exactement voilà ce qui s'est passé. mu nekk lu metti mu nekk lo xamante ne yaakaar naa sénégalais yi ñu ngi koy naqarlu automatiquement ba nga ko gisee sa xel ci li mu njëkk a dem agression wala lan la njëkk a dem. bon je ne saurais le dire hein sama xel plutôt jaaxle. jaaxle parce que ginaaw tud nañ dé rek. Mm. dama né ku ñu rey lay doon. Mm. voilà tud nañ dé tudd nañ tëdd deret nit ki du du rey boppam noonu tëdd quoi surtout que man xale bi xam naa ko sama cliente la woon ndeysaan xam nga su ma fa demee papa rek la may wooyee sama opération yi sama koy def foofu laay jubal def ko su ma ñëwee papa loo bëgg defal ma sama opération ma dem xale bu baax ah tranquille jullite amul ak euh, relation nit ñi d'ailleurs warul am ak relation ak nit ñi sax su doon def fi dëkk ñu xam ko xam ay jikkoom mën a ak moom mais dëkku fi lieu de travail am la et puis en plus yàggu fi vraiment yàggu fi quoi et malheureusement lol tamit ci famille yam la ko jëlee ñeneen biñ ko doon njëkk wax sax gëm mako won mais famille yam ñoo confirmer né effectivement dafa ëmboon euh, malheureusement de 5 mois euh, ñu ray ko ray bu bu bu doy war dal bo xamné bi sax rafetul di di net dal mais metti na metti na trop. papa ngi ne nga dugg ci biir daal di gis affaire yi ñu demee automatiquement tamit sentiroo benn suspect si alentour non non non, vraiment malheureusement ma ben suspect euh, plutôt dama am un sentiment de de de de de de de de, de détresse mais mais aussi de regret quelque part parce que littéralement, j'ai ma am sentiment boobu après dama ne mais dafa am loo je ne pas, dañ koo doon def mais defatuñ ko quoi Je me di di di le voisin immédiat parce que ginnaaw.

lol mom loolu moom metti na ma trop je le regrette quoi je regrette mais c'est après coup parce que romb n'a fi man dem julli ji timis euh, xam nga comme ça quoi ma geesu gis lumière yi ma ne xale bi na fi dé comme ça nii rek sama xel continuer dem ma julli ba paré ànd ak sama benen xarit ñuy wàññeeku ce même sentiment mo ñu dal man ak mom kenn ku nekk ne xale bi tey na après au lieu que sax ñu jël penn pour wax tay xet xale bi guddee na xaar ñu xol qu'est-ce qui se passe té lolou moo amoon bu quoi mais malheureusement légui bop sa bop bi lawna ba euh, problème yi mom moo koy créer quoi malheureusement et puis yalla def na peut-être peut-être je dis bien peut-être moment yoy suñu réagiroon peut-être deewagul on ne sait jamais xam nga peut-être mën nañu rapidement woo sa peur peut-être mën nañ ko sauver mais voilà quoi ce qui s'est passé yalla aussi limite def def na ko xale bi ndeysaan euh, ku shahid la parce que dafa ñëwoon di daan dolem et puis ken xamatul foy muccee ñu fekkal sa barab bi ngay daanee euh vraiment fat la noonu lolu metti na metti na té té te doy na quoi actuellement. bu doon lu metti loolu loolu loolu yaakaar naa ne wax nga ko sa njëlbeenu kàddu ñu bëggoon a xam nag tool bi ndax da nga koy canaliser si jeunesse su Sénégal wala da nga koy canaliser un tout petit peu à l' état. bon ñëpp hein bon l' état euh, en passant par euh, le ministre de l' intérieur parce que c'est lui qui est en charge. Euh, de la sécurité Hein. d'abord je laay njëkk a indexé euh, dire que mom, ñom, dañu parce que lan la def euh, dama gis ne ñom dañuy def constat quoi affaire su dañuy ñeu constater mais on a une très bonne police deux trois jours problème ça yu amé da ngay gis arrêté nañu gars ça veut dire qu'on a une très bonne police et puis keroog d'hier police bi ils ont fait appel à la police scientifique qui est venu macha ni on était là jusqu'à 3h du matin lañ après ñu doora évacuer corps donc euh, le plus rapidement possible et ça ça aussi dañ koy demander carrément le plus rapidement possible ces ces ces là leen arrêter le plus rapidement possible am nañ ci parce que suñu police c'est xarañteem tollu na waaye. papa ñu service position ya nga xamante ne ñoom ñoo installé wu Sénégal pour séddale la nga xamante ne ni mooy xaalis ñu gis ni loolu dafa ànd ak seytaane ñu ne xaalis yaakaar naa ne xaalis li muy njëkk a dem ku ne xam na ko ñu bëggoon a xam ndax tey jii jaadu na ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor métti service est ce que jotul tey ñu daal wut ay visite ñu daal leen mën a aar waaye tamit daan mën a sàmm seen kaaraange. oui euh, loolu je l'ai dit euh, c'est une responsabilité pour moi c'est ça hein. bon euh, dañu am parti boo xam ne ils sont vraiment responsables parce que man mënuma comprendre euh, nga am un employé ensuite euh, nga am multiservice fo xamni fi da fay génne alal après défaut ci le nécessaire par exemple caméra de surveillance ça ne coûte rien du coup ça ne coûte rien quoi té lolu da fo a ni ngay amé sa téléphone di connecter sa internet ñi am yooyu yep non la ñu war sen amee caméra de surveillance fuñu tollu ñuy xam qu'est-ce qui se passe c'est ça parce que loolu mom moy protéger sen employés té te bi dañ cee taxaw mais il paraît nak, il paraît hein, waji établissement Mansour bi il paraît amna ci une cinquantaine mais malheureusement il défé nee nañ ma fi rek mo amagul won amagul won caméra de surveillance fi mo amagul won vigile mais sinon yenen yi mo am yep amna vigile amna caméra de surveillance xam nga yàlla moom euh, buy ñëw ak ay mbiram malheureusement c'est ça quoi voilà. bu doon alerte si au Sénégal waye tamit mu doon alerte si képp ka nga xamante ne nii yaay citoyen malgré tout on ne peut pas mettre un policier devant tous les Sénégalais. c'est pas possible mais ban conseil ngay jox jeunesse. oui conseil bi may jox jeunesse bi moom c'est pas compliqué c'est très simple mom moy ñu am ngor gis nga yaram ngor su joggé ci nit ki malam mo la gën moi je je suis contre tout à fait contre amna na ñoo xam ne dafa dama defe sax ñom ñoy influencer xalé yi dire que xalé yi amuñu liggéey mom motax non ça c'est pas une raison Amo liggéey da ngay dem raye amo liggéey da ngay dem sàcc lool du ngor nit ñi dañu wara am ngor et puis le paradoxe c'est ça c'est quoi boo seetee léegi bandi yi xale yu salte yi doomu iliman ba doomu serigne ba seen baay day baax seen ndey fay liggéey ba son mais ñom ñoy ñew di toroxal sen wajuri di toroxal sen mbokk yi tu ne comprends pas bu njëkk dañ doon wax non ki kat amul ko ko yor nangam sangam mais légui ño xamne ñi ci kër yu bax li ñuy génnee ci kër yu yu ñu fonk yu ñu respecté fofu la ñuy génnee malheureusement ñom ñoy nek euh, ñom ñoy ñak ngor ñom ñoy ñak ngor je demande donc à la jeunesse ñu delluwaat ci valeur yoy nañ am ngor nañ am dignité ci sen bop c'est ça la dignité alal ju lew dafa bax dafa dafa parce qu'ils sont appelés sous nous, am njaboot ñu yar njaboot gi ci diine ñu yar njaboot gi ci yoon pour mu ci il faut muy malheureusement lu tamit dañ ko di voilà loolu daal man loolu laay à la jeunesse Nous góorgóorlu affaire bi yàlla moom moo bind baaraam yi ni mu yamalewul mënoo gis nit rek c'est pas possible ça ne fonctionne pas comme ça li nga am boo ko doyloo yaa dàqa noos ki nga xam ne kii moo am milliard ki am milliard benn la am ci lay tëdd ki am milliard pomme Sénégal bi pomme bi muy lekk ngay lekk ki am milliard téeméeru banaana bi mënu ko jeexal yow yow mën nga lekk 1000 francs banaana mais allah yaa ko gën dundin yaa ko gën dundin donc da nga war a doylu nga nga nga gore après boo goree rek yàlla mën na ñëw incha allah dimbale ñëpp quoi borom bi def d'ailleurs nous euh, leen ñu ngi leen di invité ah, mercredi à 16h sitting pour dénoncer et parler de l'insécurité mais aussi parler de de la place publique qui est en face parce que au départ le maire bi créé koy dafa am idée extraordinaire géniale parce que daf créé créer won def fi wifi def fi lumière boobu bu booba amoon na sécurité parce que boo toogee man sama masaan toog fii jàkkaarloog euh, place publique day leer danaa gis ne sama doomu toog ne doomu sama benn copain moo toog ne ah le doomu diw la kële doomu diw la ku fi dëkkul woon daanaka doo fi ñëw ku fi ñëw xale yi xam nañ la donc y avait de la sécurité mais depuis que le vivi est parti depuis que la lumière est partie depuis que garab yi sëq lëndëm fii léegi dortoir la su ma xëyee suba julli ji

ñemeetuñu sax dem toog ci place bi man dama rus toog ci place bi parce que damay bañ ñu jaxase ma ak ñoom dama ragal toog ci place bi parce que léegi ña fay gis ñuy toog da toog fi ñu ne xujj ay ponkal di la xool doo xam ñii fu ñu dëkk doo xam fu ñu jóge yeewoo fi tëdd nelu fi yeewoo doo xam fu ñu jóge quelque fois dañuy ñëw ba fii may ma ndox ma sëlmu tu as peur quoi tu a vraiment peur su may julli ji juma jàkka ji la matin damay génn tej bunti bu baax buntu kër gi bu baax taxaw léegi stoppé tuuti xool sama beneen naatonga buy dem ci jàkka ja ma mën a ànd ak moom dem ci jàkka ci bu njëkk dama doon génn xëcc buntu bi rek dem jàkka ja julli ji tranquille mais léegi personne n'est plus tranquille malheureusement ça veut dire que l'insécurité est grandissante waaw ni ko jaajëfal baax a baax a baax yaakaar naa ne éclaircissement yi mu indi si fee bi ku nekk gis na ko waaye tamit Sénégal ñun ñoo ko moom bu ñu waxee Sénégal dañuy wax teranga waaye tamit bu ñu waxee Sénégal dañuy wax ñu ñëpp ñoo ko moom benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar insécurité nekk na sujet boo xamante ne Sénégal léegi foo dem moom la ñuy waxtaanee waaye tamit Sénégal léegi foo taxaw insécurité la ñuy waxtaanee buñ ko waxee mënuñoo jël jeunesse bi daal di leen jox toor mënuñoo jël police daal di leen jox toor parce que mënuñoo jël policier benn policier bu nekk teg ko ci kanamu sénégalais waaye ñun sénégalais yi ñun ñoo war a xamaat suñu bopp xam ni kii nu rey sénégalais la suñu mbokk la kii nu rey sénégal lay yeewoo kii nu rey sénégal lay des tey ji génn na àdduna te sénégal gii lay des dinañ ko ña di ko ñaanal yàlla bu baax a baax fi mu jëm daal di koy dàqal fii mu jugee waaye tamit di woowaat état bi bu baax a baax a baax parce que bu ñu waxee état yaakaar naa ne moo ëmb lépp bu nu waxee état li tax ñu créer état mooy liberté waxuñu liberté nag pour libertinage waaye dañoo wax liberté pour sécurité poto lampe yi nga xamante ne ñu ngi koy def pourquoi pas ñu daal di jël poto lampe bu nekk comme poto lampe bu nekk cinquante mètres cinquante mètres lay def ñu daal di ko dugal si loo xamante ne amaluñu benn njariñ apporté ne daal di siy def caméra de surveillance pour que ñu daal di mën a nekk sécurité waaye tamit ñu daal di renforcer waat bu baax a baax a baax xëyub ndaw ñi ndaw ñi tamit quoi qu'on puisse dire ñun leen a duut baa baaraamu tuuma waaye tamit ndaw war nañoo mën a xamaat seen bopp bu baax a baax a baax a baax te xam ne comme sunu papa lu mu ko lek ñun mom la ñuy lekk milliardaire bi bu tëddee day nelaw té bo nelawé li nga am yépp da koy faté ñun tamit buñ tëddee lu ñuy nelaw malgré amuñu dara waaye tamit buñ nelawé li am yépp dañ koy faté papa ñi ngi leen koy jalé bu baaxa baaxa baaxa baax wa euh, Feeling Dakar ñi ngi leen koy jalé wa Pikine evo TV ñi ngi leen koy jalé ñu bàyyi la ngeen wax seen mot de la fin voilà sama mot de la fin mom moy vraiment remercier toute la presse man tey laa door a comprendre euh, yéen euh, seen solidarité quoi vraiment tey moom chapeau chapeau quoi à vous tay gis nga sama baat bi dafa dee ça veut dire que depuis 9 heures ba léegi maa ngi wax ak presse et puis tey laa door a comprendre sax euh, presse bi ni ñu toll au niveau au niveau du du du Sénégal mais vraiment te ñëpp ñan lañu yéen ay xale yu ndaw li ngeen ça veut dire que yéen yéen ngi bay seen waar mais ñeneen ñi nañ leen toppandoo yaaram ah donnez vous donnez l'exemple ay xale yu ndaw ngeen yéen a ngi def li ngeen war a def sàccuñ leen fenu leen yéen a ngi liggéey loo leen am mu doy leen xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen toppandoo waa Feeling Dakar maa ngi leen di ñaan ngeen toppandoo waa Info Pikine TV donc euh, yàlla na suñu borom bi barkeelal leen merci merci beaucoup merci